asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum <clears throat> asalaamaaleykum waa Sénégal ak yi Sénégal fépp fi ngeen manti nekk maa ngi leen di nuyu maa ngi leen di ziara balu te di leen balu àq tey gis ngeen ko ci Sénégal yeewu nañu ak euh, information bu bees mu di li ñu xamal ni grande coalition bi waa Pastef taxawu Sénégal ak PDS woote woon ne dinañ ko génne mën a jàmbaarloo ak Benno Bokk Yaakaar finalement nee nañ leen PDS bokkatu ca li ko waral moo di nee nañ leen PDS wax na ni euh, dafa bëgg ville bu nekk dëkk bu mag bu nekk candidat ba fay jiite liste bi mu doon waa PDS mu mel nii daf leen di mën a permettre parti bi nga xam ne Abdoulaye Wade moo ko sanc mu daal dellu jël place ba nga xam ne moo nekk sam mooy euh, dans les années quatre-vingt-dix mu nekk gestion waaye it mu dellu ci waat jël boppu li ñuy wax ni kujje gi taxaw jàkkarloo ak Macky Sall bu fekkee nii bett na nit ñu bari yéen ñi ngeen xàmme yéen safoo kii wuloo yéen fas kóllëre sama diggante ak yéen defe naa ni du leen bett ndax wax naa ko waxati leen ko ni leen euh, le rêve d'Abdoulaye Wade le rêve d'Abdoulaye Wade wax na ko sax dootul rêve c'est son vœu c'est son projet mooy que les libéraux pendant cinquante ans juróom fukki at ñu jiite réew moom ak ay doomam su ma nee ay doomam président Macky Sall ca Karim Wade moo leen jiite waaye Idrissa Seck ca la bokk taxoon am na benn vidéo bu ma defoon defe naa ne du plateau Kéwoulo am na ku ma mës invité ma wax leen ni opposition 2019 fi réunion di waajal dem élection présidentielle man Babacar mu ndaw la ñu confié woon li nga xam ne mooy organisation seeni réunion yi maa ko doon planifier man maa doon euh, veiller à que ñu mën a def seen ndaje yi ndaje yoo xam ne sant coow amu ca kenn musa see xeex kenn mus see gaañ kenn bu ñuy demee présidentielle 2019 boobu. a préciser que aw ma woon chapeau journaliste aw ma woon chapeau. journaliste d'investigation parce que décision décider wu bàyyi Kéwoulo ñeneen man ma nekkoon conseiller spécial bu Pierre Goudiaby pas bobo la organisé rencontre yooyu ak réunion yooyu ma xamal li ni ak préciser waat leen ni ci ben salaire bu mu ci fay. moo doon liggéeyal ndax Sénégal mo toll won fo xamné démocratie daf ko sax tubaab dafa ne le charme de la démocratie c'est la contradiction benn parti réew ñëpp ànd ak parti boobu loolu baaxul ci réew loolu moo taxoon ma def bu maa doon organisé maa doon coordonné seen rencontre bu ñu dans une salle ma bàyyi ñu waxtaan naka noonu bi coow li jógee laa leen wax ki di Bougane Gueye Dany li bokk li déggoo bi amoon ci élection présidentielle pour ñu bëri ànd ak Ousmane Bougane moo ko yàq Bougane moo liggéey lobbying bi nga xam ne moo ñu dem ànd ak Idrissa Seck tout en si boppam wax na leen nii wee ginnaaw moom mu ngi doon déggoo ak Abdoulaye Wade ak euh, Macky Sall waxtaan ak Macky Sall pour ànd ak moom donc élection bi gis nañ ni c'est de la poudre aux yeux Abdoulaye Wade euh, Macky Sall dina falu premier tour cinquante huit man Babacar Touré maa njëkk joxe mais waxuñu ko ci biir site internet bu Kéwoulo dañ ko partagé si panelu Kéwoulo ndaxte xamuñu ko partage suñ ko bindoon article conséquences yu mën a indi ci trouble ci dëkk bi loolu la tax waxuñu ko waxoon naa leen nit ni ki Abdoulaye Wade àddina du yàgg mukk ba mu woo voté Ousmane Sonko àddina du yàgg mukk Abdoulaye Wade nangu à cent pour cent mu am changement radical aspiration profonde des populations muy ñun ñëpp suñu bëgg-bëgg mooy lan Sénégal moo xam Sénégal du topp mbuum jaam bi ñu France takk Sénégal di liggéey di jox ay Turquie di liggéey di jox ay Chine di liggéey di jox Dubaï bi fekk ñun ñoo soxla suñu alal ñun ñoo am suñuy ressources loolu mooy defe naa ne bëri na Sénégalais yi yoo xam ne seen rêve la parce que nan ko wax di dund ko wax ci ay plateau yu bare ne leen grand yu ñu jiite ay complexe la ay seer la dama ko waxat saagawuma xas ca ma mais complexe ci formation doomi aadama la bokk am na gëmuñu seen bopp nañu langaamu rek ci ñi leen daan jox euh, dessert ñun at yi ñu am bu fekkee ne bëgguñu suñu dëkk ñu dog buumu ñu arrêté di langaamu parce que langaamu ñu sax si France France ñu ñëw ko yor yor réew yi di ñëw di dundee ñun suñu alal loolu lañu ne loolu dafa doy bu fekkee ne loolu moo tax ma nekk parce que peut

2007 la ko publié parce que journaliste da nu ñu former de sorte que on parle en intellectuel dañuy wax en intellectuel askan wi way nasaran la wax askan wi Sénégal la ca gën a rëy ca askan wi jangul nasaran déggul nasaran donc bu ñu defee ay politique wala ay jëw wala waxtaan ak askan woowu te waxuñu ko làkk bu muy dégg dafa mel ni ñu wax ko amal benn njariñ tax na téere bii nee naa leen 2007 la ko bindoon muy enquête bu rëy bi ma def ci wàllum énergie su ma waxee énergie damay wax courant damay wax euh, essence damay wax damay wax li nga xam ne mooy tax ñu ni Sénégal c'est un État ci biir livre bi su ngeen ko xoolee am na benn pas benn consacré xaw ma ndax ngeen ko gis bu baax maa ngi koy tuddee au du Père du Fils au du Père et Amen maa ngi wax ni qui mieux passage qui mieux que le fils est le plus indiqué pour couvrir les arrières du père qui mieux que lui est plus apte à défendre ses erreurs expliquer ses erreurs et peut-être lui consacrer un musée, un monument. Qui mieux que lui pour mettre du blanco sur tous les dossiers brûlants qu'il a eu à gérer. Il pèse sur la conscience et l'oblige à se rendre toutes les années à la Mecque. Qui mieux que est prêt à défendre le bilan de Ouad Qui mieux que lui peut faire face au peuple et le convaincre que Feu Kebadjo, Moussa Ao, Penda Kebe ne sont pas victimes de l'alternance Qui mieux que Karim est prêt à lui dire que l'avenir de milliers de jeunes sénégalais au prix de leur vie n'a pas été négocié par Abdoulaye Ouad pour les faire revenir dans l'enfer sénégalais qui mieux que lui est prêt à jurer que ceux qui pleurent la cherté de la vie ne sont que des paresseurs. Qui mieux que Karim a suffisamment de culot pour regarder les Sénégalais dans le blanc de l'œil et leur dire que sous Ward, tout va bien. est 8 mars 2020, à la tête d'une république que ses prédécesseurs ont construit de lourds sacrifices. La tradition veut qu'on l'appelle Monsieur le Président. Mais Ward a une autre vision de ses fonctions. Il se prend pour un monarque.

ne t-shirt di diwlin bi cher la kan moo am sañ-sañu mën a taxaw xool sénégalais yi mbar da ngeen a liggéey wut moo tax amoo leen lu ngeen lekk ku dul Karim Wade nee naa leen Sénégal ab république la woon bi nga xam ne ñu président mu daf ko Abdoulaye Wade jamono jooju livre bi 2007 laa ko bindoon ko donn ci ay ay ay ay ay président yu bëggul mu nekk république moom daf ko transformé monarchie bi may bind bi 2007 la 2007 ak léegi fukki ak fukki ak ñett wala fukki ak ñaar quelque chose comme ça Abdoulaye Wade ben rëccu la am ci àddina wala ñaar ben bi moy lu mu jot ci nguur gi fekk mag la ñaareel bi lan mo tax Sénégal ñu jël doomam ñu jël ko lepp li mu mëna def dana ko taxawal ci lool lepp lo xam dafa danga gal doom ak ay chance am pour mu jël rew mi président Abdoulaye Wade du ko seetaan loolu moo tax 2019 bi Pierre Goudiaby Atépa dem Paris def lu mat weer ba Abdoulaye war ñu waxtaan pour Abdoulaye Wade dana dellu si jàppale Ousmane Sonko pour ngeen am changement mu ne ko loolu du am bi ñu ñëwee Ousmane Sonko dagg campagne électorale am mu ne am campagne électorale mu dagg ko ñu wuy ji Abdoulaye Wade ci teeru bi maa ngi yoon ci saal bi. naa génn ma ne lii lu ngeen fi wuti du ngeen ko am na non président dafay ànd ak ñun dafay ko mu leen du ko def. barki démb encore euh, ñu taxaw ñu ne dañu def coalition les quatre grands les quatre grands mooy lan mooy taxawu seen les quatre grands mooy kan ñu ne Ousmane Sonko les quatre grands mooy kan mooy PDS benn quatrième bi sama xel jàpp ko la ma leen waxoon ci njëlbeen moo ci nekk Ousmane Sonko tey dafa am problème problème bi mooy tey bu Pastef taxawee ba mu toll fi mu taxaw fi mu toll. la tax ñu bëri topp ko moo di dafa ne lu bon li ngeen fi ci ay ati at man loolu laa bëgg a dama bëgg alal réew mi ku sàcc ñu teg ko ci yoon ñu jël richesse su réew mi ñu delloo ko waa réew mi loolu moo tax sénégalais yu bëri ñu topp Ousmane Sonko mais bu tey ñi nga xam ne nag ñoo ñooy responsable de tous ces yi tra yi tax Sénégal ci 60 ans yi ñu ne nga bëgg àndaat ak ñooñu ne da laaj nguur gi parce que selon yi ñoom seen calcul politicien mooy mbooloo mooy doole bu boobaa da ngay fausse l'espoir des sénégalais mooy lan moom seen réew mooy ku sàcc ñu teg la ci yoon ku fi jëloon alal ak ku mëntoon doon parce que dégg naa keroog benn benn waay di ko wax ni ay fonctionnaire ay immeuble ay fonctionnaire milliardaire warut a am képp koo xam ne ay fonctionnaire lañu ñu nekk dañ leen war a jàpp lu ñu moom jarul sax ñu leen di teg ay crédit wala yooyu nañu nangu ñu moom régler problème mu réew mi loolu muy dëkk demal demal Géejawaay demal Pikine demal Caaroy nit ñi bu guddi jotee dañuy toog demal tey jii sax ba dëkk àll bi Touba Mbacké ay xale di ndox ci deux mille

ko amoon sa mam wa sa pat bu bo Abdoulaye Wade am doo nango nangoo dépense au kër gi kër ko jox donc nak la ñu mën a la vie de tout un peuple ñu accroché ko dépendre loko ci góor googu lu mu bëgg ak li mu bañ tey jii PDS parce que patrimoine patrimoine familial la bo xamné Abdoulaye Wade dafa bëgg jël jébbal ko Karim Wade taxaw bëgg faagaagal projet bobu dañ la fi tekki alors que tey jii su Sénégal bu amee chute bi ñu nek dëgg la Macky Sall depuis 9 ans mais tout ça buñ ko koy remonté la responsabilité incombe à Abdoulaye Wade Pastef bu jóg mooy deewu PDS. bu am victoire mooy chutu Karim Wade Abdoulaye Wade mu ko accepter du ko def donc tay ji bi ma waxoon ndeysaan sama mag yi Siré Niamé Touré kooku ku sonn la ci am. PDS bu ñuy wax les amazones du PDS jigéen ñi nga taxaw PDS sama sœur bokk Sira ñame Touré ci la bok sonu ci lool daj ci lu ne té mu ngi bari defe ni man ak mom saa ñu mës a réeru rek ci wax jojo la ndax dafa bëgg Abdoulaye Wade ba mu ci xol man nag gëmutuma Abdoulaye Wade gëmutuma la politique libérale ndax dama gis li mu yàq si Sénégal keroog daf ma bàyyi ko ma ba lañ ma mësa wax yépp ma judo ba légui lan ma mos a wax tek na ci sama bët

Abdoulaye Wade bu ñu démon tay yalla def mu dem élection présidentielle deuxième tour ñu né PDS mo fi nek pour mu voter entre Ousmane Sonko wala jappalé euh Benno Bokk Yaakaar Abdoulaye Wade dana woote ñu jappalé Benno Bokk Yaakaar du mës wax jamais pour mu engagement bi parce que tant que bordel bi mu ngi tant que Sénégal mu ngi ci guute bu melni pour mom y a une chance à ce que Karim Wade revienne même bu féké né tay bi ban grand leader moo des ci PDS ñu ñun xamul ñëpp ñu woron Abdoulaye Wade kenn nekkatu fa tay à part Doudou Wade ñëpp dem nañu ànd ak Macky Sall c'est-à-dire mag APR PDS c'est la même chose recyclage la ba si ki tax ne leen euh, transhumant bu ko defee dañ leen war a fusiller ko ci boppam transhumé na donc lan moo fi des ñu leen grande coalition la ñuy taxawal grande coalition boobu en dehors de Pastef bien sûr bi nga xam ne amul ku gérer ku réew amagul euh, gestion bi tax ñu nañ ko audité ak ñoom ñi ñi bëgg taxawal ñëpp am nañu ay compte ñu war a rendre sénégalais ndax tey bu ñuy wax cherté de la vie ñëwuñu seen loxo ngi ci biir ba ci Bougane Gueye Dany parce que Bougane même mu fekkee ne dëgg la mosut a gérer réew mi le fait que mu woote mu mu def ce travail souterrain boo xam ne man je suis un témoin de ça pour que ñu ànd ak Idrissa Seck tout en sachant que Idrissa Seck mu ngi combine bëri ak euh, am Macky Sall voilà une trahison une traîtrise boo xam ne dafay tax Sénégal yu resté ci bii man moom naa bokk ci yi nga xam ne peut-être du ma fi noonu toog di wax wax yi may wax damay dem bokk si ñoom mais dama ka mënut def parce que su ma génnee sama kër ma jàkkaarloo ak sama dëkkandoo yi mu leen ma ne ñii amuñu lu ñu lekk ñii amuñu lu ñu fajoo je ne me sens bien. sama morom yenn ñi nga xamne ñom la masal maasal peut être li nga xam ne ñu aspiré loolu ñu rayante ko mu ko suma ko demoon ma am ko mais dama gëm ni ay milliards ay kër yu rafet yu bëri ay xaliss yu compte bancaire yu fess amul lu benn njariñ benn njariñ da lay sonal rek amul lu benn njariñ tout ce bien matériel da yow sa peuple lu sa peuple mu la ñaanal amul lu njariñ man lolu la gëm tax na changement yi dafa war a commencé ci mairie dafa commencé à la base tax na réew mi dañu wara a nangu lépp li nga xamné suñu ki do souveraineté ni ñu delloo ko doomi Sénégal sénégalais dañu wara mëna faju sénégalais dañu wara mëna a bu suur sénégalais dañu wara ñu arrêté di ñu di ñu pomper sur tous les plans ba dina ci ñëw point par point parce que né ngeen ma da ngeen soxla ñu expliquer leen nga xol tay kaw sdo su ma koy jël par exemple.

kenn amul pour taxaw taxaw askan woowu tay ñi ñu ngi wax démb ñi nga xamne ñoo accidenté nek ci hôpital fulé ci faté ñu né duñ leen laal du du ñu fay ordonnance yi ngeen ko barki démb xalé bu jigen bi andon ci cortège yu bi demoon tambakuna ñu né ko prise en charge président wax nako mais il faut nga fay naka nu amul na ki les rescapés nga xamne ne boo fa bàyyi ñu leen hôpital fulé principal il faut ngeen fay vous fait ne un hôpital public vous pouvez en charge gratuitement les gens, vous leen merci. donc ce pays là a un problème a un sérieux problème faut ma wax ko faut me rappeler. waat euh, le serment d'Hippocrate il wax ni doo lor da en charge le mal nit ki bu ñëwee ak en charge complètement doo ko sunal doo ko bañ a faj mais Sénégal dañu gis ni xaalis boo ko fayulee kenn du la faj bu la yeboo nga dee foofu parce que c'est un pays boo xam ne si pourri de la tête jusqu'en bas il faut nous jëm a changer loolu te changement yooyu mooy kenn ku ne ne je suis le maître de mon destin kenn ku ne ne man maa war a changer réew mi damay uti sama carte sama tool yi ma dem amul tayal amul yox yox même bu fekkee ni ñu ngi teg ay ndëgg sërëg yu bëri bëri bëri bëri tax na nit ñi mënuñu jot seen kayit su ma waxee loolu sama xel dem ci hôpital Aristide euh, euh, état civil bu Aristide Le Dantec nga xam ne nee nañu kenn moo fa nekk mooy seen officier d'état civil waa ji saa yu ko neexee lay ñëw tey jii boo demee foofu état civil bu Dantec nga déposé léegi sa extrait de naissance nga bëgg dans une semaine tey bu noonu alxamis boo ko déposé tey alxamis bi ñëw lañ lay wax ni nga ñëw pour moom mu te li gën encore dañuy signer sa accréditation état civil ci defaale ay erreur parce que li ko waral moy ba léegi ñoom bañ nañu euh, informatiser numériser état civil fichier bi au cœur de Dakar le plateau vous vous rendez compte le plateau xolu Dakar dans mi nga xamné ne à motul sax euh, un kilomètre du palais présidentiel ñi juddu Ziguinchor té tout est informatisé ñi juddu tambas tout est informatisé ñu juddu état civil bu Dantec fofu ci wetu palais bi. mënuñu informatiser seen état civil da ngay ñëw ñu dem dañuy ubbi carnet pour ñu xool bu ñu xoolee ñoo transféré nañ ko ñu xaar jour bi officier état civil bi ñoo pour mu signer donc ça veut que ñëpp ñi nga xam ne bëgg nañu uti ji foofu seen i acte tey jii ñu mënuñu bokk ci liste électorale parce que dans une semaine la seen officier d'état civil bi di ñëw Sénégal ñu bëgg accepter loolu ñu cautionner loolu au cœur de Dakar état civil il faut nga xaar une semaine parce que officier d'état civil bi saa yu ko neexee lay ñëw mais deuxième chose ci lépp ci ay registre la ñu gardé fu ñu dem seet ci archive yi pour ñu génne le registre yooyu Sénégal bu 2021 ngeen bëgg ñu accepté loolu ngeen bëgg ñu croiser les bras loolu nañ leen ñu ci yaakaar mooy ces quatre grands tey bu gànnee na leen c'est le cinquième grand c'est le cinquième grand xamal le quatrième grand qui va aller rejoindre camp Ousmane Sonko parce que pour nous vie au Sénégal nous ngi yem la personne des leaders sénégalais moo war a moo Arrêter a arrêté loolu warutuñu gëmati ni ki benn doomi aadama changer moo war changer le destin parce que euh, simplement je m'appelle euh, Abdoulaye Wade man destin yor destin Sénégal simplement je m'appelle Idrissa Seck ñëpp dañu ma war a topp moo tax position Pape Diop bokk gis-gis nit la boo xam ne on peut lui reprocher ce qu'on peut lui reprocher mais c'est quelqu'un qui est constant ci li muy def ak ci li muy wax Abdoulaye Wade teel na génn même bu fekkee ne luy déstabiliser la luy déstructurer la mais moo gën mu ànd ak seen gars yooyu seen coalition ba au dernier moment à la veille de l'élection mu ne leen génn naa ci fekk seen stratégie yeeg lu ngeen waxtaan ak lépp am na ko Karim dul Karim intéressé wul Abdoulaye wat te Karim moom pare na ci Sénégal Karim wad pare na ci Sénégal waxoon na len ko il y a trois ans bi ñu wax day ñëw élection 2019. mille dix wax naa leen ko waxat len ko il ne viendra plus jamais bok ci élection ci Sénégal par na fi. qu'est-ce qui reste Teddy. Mary mairie yu bari. maire de ville yu bari ñu ngi delluwaat seen réew ñu ngi delluwaat seen réew ñu ngi delluwaat seen dëkk parce que dañuy fàttaliku ni élection day ñëw te bëgg nañu continuer di jaay suuf si di diriger nit ñi di di di di sax ils veulent le beurre l'argent du beurre mais sacrifice bi ñu ci war a def duñ ko def nit ñu bare woote nañu. kaas parce que politique man leen pas boo koy wax dafay mel ni da nga nekk da météorologue man météorologue journaliste journaliste d'investigation ça veut dire les faits les faits man après faits c'est vrai mun naa ko analyser son projet c'est quoi c'est que nous, amnistier Karim nous pour mu dellu si mais day si pour Macky Sall Ablaye Wade mësuta réeroo ak qui di président Macky Sall ils sont comme copains et copains bu ngeen foog discours yu politiciens di génn ci mbedd bi di leen wax après ñu diviser leen delluwaat parce que loolu moom mooy li am c'est que nit ñi on n'est pas encore réveillé li ma bëgg ngeen ngeen xam ko mooy lu am njariñ la Sénégal warut de continuer de rester ci situation bi délai yi dem na élection élection municipale élection communale yi ñu war a def tey le deux donc 6 jours moo six jours modestes pour nous diagnostic. Et vous l'avez la plupart des gens demandent pour nous inscrire, pour nous bindouji. D'un des Changement, il y a un changement. Il y a un changement. Nous, sommes classe, nous veut nous faire que ce que vous savez, le Sénégal est dans le tiré. Il veut nous comme nous le disait France, nous le disait ici, il y a un moderne yi yu démocratie yu démocratique yi ku feebar nga dem faju ji te doo fay dara da ngay présenter rek sa carte bëgg nañu gis ku xiif nga dem lekk ba nga suur te doo sonn su may wax loolu sama xel dafay dem ci livre parce que woon naa leen beneen livre bi mooy bi ma bind depuis 2007 pour le triomphe de l'imposture enquête sur l'énergie au Sénégal tey jii tudd naa leen kaw Senelec Senelec bi nga xam ne jël facture deux mille wala trois mille ko fay sa courant indil la bon de bu mille amul quatre wala trois mille na ko a bon de problème parce que c'est yoon nekku spécialiste di wax deux millions d'euros pour électrifier ay énergie propre la énergie solaire parce que Sénégal pays yu mel ni Maroc et consort dañu ba si désert bi ñu teg fa ay panneaux solaires courant boobu muy produire ñu di ko éclairer seen dëkk depuis 2007 la bind téere bi wax leen ni Sénégal normalement kenn warut a fay courant ndax naaj bi nga xam ne yàlla suñu borom moo ko jox naaj boobu la ñu waroon ñu jël mën ko mettre uti ay panneaux yu wóor. Je suis un spécialiste pour 130 milliards de francs CFA, 130 milliards, peut-être moins cher que l'avion de, de, Watt, de 130 milliards, si, si, si, moins cher que le train ou Tchahan, TER, Bignot, Tegal, Gardou, dans 130 milliards de francs CFA. Si Guinée, investir pour la centrale électrique pour le euh, solaire. Ben Sénégalais, d'autres fait du courant. sénégalais yi matuñu 200 millions euh 20 20 euh, millions de sénégalais mën nañu équiper sénégal ba mu daj kenn dootu fayti courant 130 milliards de francs CFA <clears throat> nit ku bëgg sa réew noonu ngay fonctionné noonu ngay xalaate ne ngeen fonds covid bi nu bi nu caaxaane dina nañu milliards donc 1 milliards yooyu ça veut 130 milliards bu ko gënoon ñu teggil askan wi mu courant ñu am courant gratuitement bon di ngeen mën a peut être waa ñu ngi def wa Sénélec parce que pétrole bi ñu indi dañ koy importer bato yi dañ koy dañ koy dañ koy indi entrant yi dugg ci fabrication gasoil wala pétrole dañ koy mu ñu ci dara même fait que ne Sénégal commencé na exporter pétrole mais pétrole bobu yalla xam bu ko defee Sénélec ñom mënu ñu courant yi ñu defal nit ñu jaay ko usine nous déjà des les grands producteurs nous ñu bàyyi ñu nous ñu suñu borom jox mais ambition que Sénégal rek ko parce que man livre bi man sama bopp ma jakarlo ak Macky Sall ca Paris mu jox ko ci loxo 2008 la astafirullah astafirullah 2012 la woon maa jàkkaarloo ak moom ma jox ko livre bi mu xam la ca nekk maa jàkkaarloo ak soxnaam ma jox ko livre bi lépp luy màgguy bi gaa yi def ci biir Sénélec lépp luy màgguy bi gaa yi def ci biir ministère de l'énergie mu ngi ci téere bi donc ñun lu teel commencé xeexal Sénégal bënn maa ngi nii teel gën a takkar gannaaw bi ñu waxee sept cent cinquante ma milliards ñëpp ñi nga xam ne joxoon nañ leen fonds yooyu dañ leen war a demander ay compte lépp lu ñu fekk ñu moom ñu moom moo xam suñ turu jabar lañ ko def moo xam suñ turu doom moo xam suñ turu del état Sénégal daf ko war a saisir ñu delloo askan wi lu ñu moom ndaxte après tout heure dee bu jotee milliards yooyu duñ leen gunge heure dee bu jotee kër yooyu duñ leen gunge lenn mu leen di gunge la ñi ñu bokkal jamono lañ leen di ñaanal ak lañ leen xalaatal ak li nga xam ne moom la suñu doom jàmm donc euh, mbokk yi man dara bettuma et puis dama naan loolu mu gën mu teel a wax mu teel a feeñ Abdoulaye Wade teel a génn ci coalition bi Abdoulaye Wade moo génn mais ñeneen dinañu génn wala ñeneen ñuy bëgg a dugg di ñuy dugg rek ba ci biir ñu dem seen yoon ñu sabote parce que projet moom sa réew projet moom sa yëf projet delloo réew mi askan bi askanu Sénégal delloo ko réewam delloo alalu réewam politiciens yi parewuñu pour def loolu politiciens yi li ñu bëgg mooy nañu continuer di euh, li ko ni kii di waxe di noosaka gunna ndaat ñun ñu toog di toog di leen seet kenn mës na ma wax ni mu ni ma da ngeen ñuy reprocher toujours alors ñun ñoo def toujours de de vivre riche de régler nos problèmes mais on s'est sacrifié ngeen ñu mel politique ngeen politique. politique daal sacrifice la par force da nga par force da nga euh, ci kaw nit parce que il s'agit de ça. ñu encore ci élection. élection yi ñëw moo tax nee nañ leen caution bi ak 15 millions lañ ko teg keneen ku mel ni Babacar Touré ak loo loo xalaatal sa gox ak na sa yéene set set set ak rafet doo mën a bokk parce que yoruloo 15 millions. lii benn barrière la benn lu tubaab naan écuelle la ci yoonu moom sa réew bi nga xam ne man dama bokk Sénégal yi nga xam dama bëgg sama réew. dama bëgg moom sama réew dama bëgg ñu arrêté di jël pétrole Sénégal euh, péage yu Sénégal di ko jox chinois yi di ko jox français yi di ko jox japonais yi dama bëgg sénégalais yi ñu moom seen réew seen alal ñu di ko dundee fii ci biir Sénégal dama bëgg sénégalais bu feebar moo mën a dem faju ci dama bëgg justice bi libre et indépendante dama bëgg mbënn bi mu arrêté ñu créer ay grand projet nit ñoo xam ne ñu ngi ci place boo xam ne place su ndox la bassin yi lañu ñu jëli leen fa rajaxe foofu s'il le faut ñu créer fa ay genre lac artificiel ay jardin botanique ay jardin yoo xam ne nit ñi dañ fay xale yi dañ fay mën dem fooye ak noppalu ñu loger leen fenêtres, mais mu am une vraie politique de l'environnement une vraie politique de l'habitat Lolo moi sama yéene bu fekkee ne loolu tax na euh, je ne sais pas fu ñu ma mën catégorie catégoriser sant à loolu ma gën

Eh, mbumu eh, ñu koy wax de mbumu collaboration bi nga xamné mom moom bëgg mu dañ Sénégal képp ku taxaw né da nga bëgg mu dañ di nga jakarlo di nga jankontel ak ñi nga xamné moy politiciens professionnels parce que pour ñoom il même pas question que mu jeex donc mbokk yi ngeen baal ma àq maa ngi balu ñëpp di balé li moy li nga xamné mom la laa bëggoon waxtaan ak yéen

man bëgguma fekke wat sama jamono bu may dund ben opportunité bu tax ñu raté le coach du développement le coach de l'indépendance Sénégal dafa war mom moom réewam baykat yi dañu wara am suffisamment de ji ñu mëna dem bi waxtu bi mun ngeen naka la nit mëna comprendre ñu né Sénégal ji amu fi ñu né Sénégal engrais amu fi ñuy dem japp Guinée Bissau ay fonctionnaire Bissau Guinée yu jël ay engrais Sénégal diko jël indiko ci réewum Sénégal di ko jaay ay ay ay agriculteurs ay béykat sénégalais bi leen police Guinée-Bissau jàppee ñu ne leen engrais bi ak euh, produit bi gouvernement Sénégal bu Macky Sall moo ñu ko may ñu waa Guinée-Bissau alors ñu doomu Sénégal sax amuñu ko alors que ñun Sénégal béykat yi amuñu engrais béykat yi amuñu semence alors que Moussa Baldé muy ministre de l' agriculture bés bu ne mu ngi reyante ak ay employés ndax ay indemnité de de de fonctionnement ñooñu tax na ñu tax nañ grève de la faim ñu ministère de l'Agriculture, lepp li nga xam war na ko def ci ren muy analyse yi muy semence yi pour joxe ko defuñ ci dara suñu toggee ci plateau yi nan l'année va bien tout va bien li pas do wax la rek mu ne li ci naq yi mooy chaque fois ñu ñëw ouais et eh bien je savais pas vous êtes dans l'eau eh, c'est pas normal c'est pas normal la pas doo wax dëgg-dëgg ay frais complexe la ñun nag nekkatuñu ay booy yu ndaw yoo xam ne dañ naan non ñu war a jàppale non yow da ngay sànni xeer waroo sànni xeer da nga war a ñëw ñu ànd déedéet ñun ay magum jëmm lépp lu doomi aadama war a jaar jaar nañ suñu diggante ak suñu dañu koy ñaan mu yéex balaa loolu di di di yegsi lépp luy dëgg te dëgg rek laa ko loolu laa leen di wax. mënutuñu dem liggéeyal beneen réew pour dul Sénégal donc Sénégal boobu il faut ñu xar suñu suñu suñu suñu suñu suñu tànk tubéy ñu def suñu kéem kattan pour que Sénégal boobu mu tegu ci yoon dëggam yàlla may nañu opportunité boobu jërëjëf.